نعمت مزايا بل دارت زوايا عمت mbokk yi ñu ngi leen isaar bu baax baax di leen jaajëfal di leen wax ni nag amati nañu mbégte teewati fii seen émission langal nabi comme nag nu ñu koy defee saa ne ba tax na itam nee naa la ndaanaan bu ne daal na fi jaar waaye tey ki may bëgg dalal moom itam da di ndaanaan dafa doon ndaanaan boo xam ni kenn doodu ko naatable di wuyoo si turu El Hadj Pape Gorgui di def lu am solo si li nga xam ni moo di zikaru Tidiane xam naa lu may wax nii du yàgg dara moom ci boppam dina ko daal di dëggal ndax tey bu yëkkatee xol yu bëri danañ tooy waaye itam xol yu bëri danañ sedd mu ngi bokk itam si njabootu Seydi Hadji Malick si bi nga xam daa jël léppam dundam daal di koy jagleen ki nga xam ni moo di gën di mbindeef yaakaaram mooy borom fala buuda di borom xilaas waaye itam di borom taysiir xam naa ni émission tay bii dana doy waar ndax kii toog fii sama wet fas yéene na koo yëngal ba mu yëngu waaye lépp nag fii lay xewee sur la TMP Events la télé de la jeunesse bu ko defee El Hadj Pape bi dama lay bàyyi rek nga daal di nuyu soppe yi bisimilah. waaw ah, mbokk yi asalaamaaleykum wa ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel di nuyu xaaj Babacar bi ñu dalal. di rafetlu liggéeyam bi ak waa télé bi yëpp tabaarakallah di ñaan liggéey bi yàlla ko yàlla gën a yaatal. ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Euh, ni nga ko waxee noonu la amuñu ko ëpp yonent bi. sunu lépp moom la bu ñuy nelaw moom la ñuy bàkk bu ñuy dox moom la ñuy tagg. bu ñuy toog moom la ñuy waxtaane ndax koo soppul doo waxtaane ay mbiram. te comme yonent moom la yàlla dénk lépp ku bëgg teraanga àdduna ak àllaaxira bëggal Seydina Muhammad moo tax suñu lépp ñu jox ko yonent yàlla Muhammad ñu ngi nuyu ñu ngi lay nuyu di la ziar baax salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam ko defee rek nga daal di yëkkati dara daal di koy baaxee bismillah yaa Cheikhana yaa Ahmada Tijaani قبات دادي يا شيخنا يا أحمد الصبا من خصه المولى لا بصبح المصاني آه، نحن أخباء بكم أتباء الحاج مبتغي بأن ترده بلا إحسان فمن بنا كما عودت سيد يا من جعل عندي بشيخ التي العباس تجاري شيخنا ذكري والصوخي وقبي آه. قلبي وروخي جناني غرفي ومردوتي قلبي Abil have been he died. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. دفنني يا ربتي ورسولي يا غمدتي يا أمان وخمنين شيخ تجاري جليل شيخنا فاقبل لنا كل خير مزد حملي بشيخ تجاري جليل رب المنان شيخنا أنت الخريت وباق أنوار كل قسان حملي بشيخ تجاري جليل رب المنان شيخنا فامدد يدي علينا طول أيام زمان قبلي بشاق تجان دليل رب منان شيخنا ثم الصلاة سلام على شفيع تدان على آلي وصحبي ما قال بالمدق فادي ثم صلاة سلام على شفيع دفنني يا أبا العباس يا من كنز وكنز الأمان نعم. كنت وكنز الأمان يا أبا الأباس يا من ينزل jërëjëf jërëjëf jërëjëf El Hadj Pape Gorgui ba dugg am na solo lool dégg nañ de dégg nañu macha allah dégg nañu xol sedd na bu baax a baax bu ko defee nag léegi dañuy daal di tàmbali si laaj yi kan mooy El Hadj Pape Gorgui. Ah, tabaarakallaahu eh, moom mooy jaamu yàlla bu bu doyee di sax laay wax. Eh, ñu ngi dëkk Tëngéej. Eh. quartier bu ñuy wax Sanc ba Njóobeen. kër maam Cheikh Al Hadj Daouda Ndiaye bi mu xaddamu Mawlaay Cheikh Al Hadj Mali. Mm-hmm. fa la ñu juddee doon fa ay sët. Mm-hmm. tabaarakallaahu euh, nekk ci mbir mii nga xam ne mooy ëttu diine. Mm-hmm. di ci yëngatu ndax ci lañuy ñu dañuy judd rek fekk suñu bàyyee ak maam yi nekk ci tabaarakallaahu xadara bi di ci yëngu. ñu noonu rek lañu mën a def. ànd ak ñoom ci liggéey bi fa tabaarakallaahu kooku daal mooy Pape Gorgui tabaarakallaahu jërëjëf jërëjëf jërëjëf am na solo lool itam léegi bëggoon nañoo xam ni kañ kañ nga dugg si sikar si ak lan moo la si dugal. waaw tàgg yonent bi moom euh, quartier ba ñu duddoo muy sanc ba wax naa ko léegi euh, foofu moom daanaka lii moo fa am euh, daanaka ku fa juddu rek ci daayira yi ngay xiirtal sa bopp ndax li fa nekk ci ay daayira kenn xamul nu mu tam mm. te benn benn la boo xam ne daanaka ñëpp ñoo xamante ñëppay duggante sa maam alxaaj Daawda Njaay moo fa ñëw Seydi xaj Maalik yebal ko mu nekk fa nekkin bu rafet di tàggat nit ñi way jur yëpp ci diina ji ak tarixa bi ñun dañuy judd fekk suñuy mag di def lii Sëñ Babacar Si xam naa li ñu mën a wax ci moom bari na waaye eh, koo sopp moom defe naa ne booy wax da ngay wax tuuti ci moom ndax bu yëf yi tàngee mën nga wax tabaarakallaahu loo xam ne macha allah waaye sëñ Babacar Sy daal mag mu baax mooy Cheikh Al Khalifa doon suñu sëriñ doon xaritu ndaw ñi waaye rawatina jigéen ñi moom daan na wax naan góor ñi yéen a ma bëggal seen bopp waaye jigéen ñi man maa leen bëggal sama bopp moo tax ku ci am xew sax boo bëggee yëf yi defaru da nga naan Cheikh Al Khalifa tabaarakallaa kon kooku kenn bu moom macha allah ñaan yàlla tax suñ ci barkeem bu baax a baax. amiin amiin li nga wax si sama turandoo am na solo am na solo lool léegi bu ko defee dama lay bàyyi rek nga daal di doxalaat. ayca bisimilah. عقيدا ينتبي وسبب عقيدا سيد العالم سيدنا سيدنا واقبل شفاعته لنا ولم دون وسليا يا إله وجزيا أبدا يودك لي انا محمد معتار في لقينا الله دي قلي عنا محمد المختار في مصطفى وصليا يا إله وجزيا أبدا مؤنا محمد مودنا مختار في العقيدة الحبيب مالبنا وسلم يا إله بوجزيا أبدا يودق لي عنا محمدنا معترف القدم jërëjëf jërëjëf bég nañu bégati nañu bégati ñeen sax laay wax ndax li ngay def dafa neex loolu macha allah ndax si xol lay dugg bu ko defee élage Pape góor gi ñu daal di tàmbaliwaat rek jubluwaat si waxtaan yi ba tey ndax gis nañ ni yàggul dara ñu gisoon fii benn pëccëxoo bu amoon si diggante taalibe yi dem nañu sax ba di gënalante tarixa yi naan tarixa bii moo gën bii te fàtte nañu ñoo bokk benn diine muy diine l'islam te suñu jiit yi ñoo bokk itam ku ñuy liggéeyal muy gën gi mbindéef loolu en tant que tàggkatu yonent bi nan nga ko gisee. waaw xaaj Babacar tabaarakallaahu dañuy delluwaat ci li yàlla wax rek waxtasimu bi xablillaahi an waaye nag wala tafarraqu yàlla nee na jàppaleen ci sama guum gi te guum bu ko yàlla waxee ñun ñoo ko tuddee guum mooy diine islam bi tey avant tere que ñun ñëpp diine moo ñu boole tarixa euh, fa tabaarakallaahu mooy li ñuy doon waxtaane sànq senegal dafa mel nii dafa am ñoo xam ne ràññee bu ñu ba léegi luy tarix tarixa euh, yoon la rek tey mu ngi mel ni bu ñu bëggoon dem Dakar kii dafay koy neex mu jaar ci appayage bi kii mu nekk mu jaar ci route nationale bi kii bu ko neexee mën na jaar ci ay mbedd yoo xam ne xëy na miin na ko bu ko jaaree dina génn Dakar loolu mooy tarix waaye tariqa yëpp ñun ñëpp bu ñu déparé ndoo ci sayyiduna Muhammad la ñuy teere ndax sayyiduna Muhammad sallallahu mooy kilifa ñëpp tariqa yoon na rek mooy nga ne dama bëgg a àgg ci yàlla naa dem seeti ci Mawlaaye maam Serigne Touba moo ma doy ma dem ci moom sukk ci moom nekk dama bëgg nga àggale ma ci yàlla loolu mooy tariqa bu njëkkoon mag ñu baax ñi loolu lañ daan def bu dee ci wàllu kër seen xaj maay nga ñëw ci tey ka nga yaakaar ca kër ga nga ñëw nekk dama bëgg nga jàllale ma ci xadara yàlla parce que dañuy wax naan kër ki fa yeewoo gan bu ñëwee ci dëkk bu ñëwee ci buntu kër su fëggee ñu dalal ko ci kër ki dëkk ci kër gi moo ko mën a wax fanaanal ci léegi waaye gan gi mënul ñëw rek dugg ci benn néeg ni fa lay fanaan loolu mooy tarif euh, senegal nag dafa am ñoo xam ne mooy li sëñ Koso Mbàkke daan faral di wax nit ñi mënuñoo wax ba ñii duñu doon ay tiijaan ñii mënuñoo wax ba dañu doon ay murit ñii mënuñoo wax ba dañu doon ay laayam ñii mënuñu wax ba kenn du cere leen ñu doon ay xaadal léegi ñun ñëpp bu ñu bokkee ci loolu kenn ku ne boo nekkee sa biir nekk war nga mën a dundal sa pas-pas sa pas-pas sëriñ mais bu ñu génnee ci ëtt bi nag nañu doxal lu rafetal suñuy diggante ak diine lislaam ndax nañu xam nañu xam ne nag diine moo ñu boole euh, ku kuy xas sëriñu jàpp man damay wax na joxoo cër sa sëriñ parce que ku respecté sa sëriñ nit mënoo am way jur respecté sa way jur ba pare bi génne di saaga way juru jàmm defe naa ne loolu ku yar euh, du doxalee noonu te Sénégal dañuy faral di wax naan ngandul Sénégal ngandul te suñu kilifa yi ma yëgal la benn mbir boo xamul ñoom ñu ngi jëflante ci seen biir ci ñu rafet xëy na ñun yu xamul yi ñooy nekk ci télé yeeg di nekk ci yeneen di wax yii féewale nangam ak nangam waaye dañu bàyyi xel ne ñi daan baax di respecté mag yi ba léegi ñu ngi fi te Sénégal defe naa ne ku mag yar yarin ba jaar yoon doo jël kàddu gu ñaaw mukk bi ko teg ci beneen kilifa goo xam ne parce que kilifa suñuy kilifa te boo demee Touba ni ñu Seydi ma May njaboote la ñuy njaboote ndax fa tabaarakallaa ñoo bokk wax naa la ko léegi danaa la Serigne Touba ak Mawlaa Cheikh Hadj ñoo bokk benn maam kii moom jur maam maram kii jër doomu bëti tabaarakallaahu ñu bokk benn maam bokk benn mbokk taalibe yi nga xam ne nag seen pas-pas dëgërul ñoom ñoo ci nekk di ruube ñii di wax lii ñii di wax lële te nag Sénégal dañu war a di ott di wax yenn yi benn mag daan na faral di wax wax ju am solo mu ne ma pap ma ne ko la bayk mu ne ma làmmañ yii ñoo ko composé ñett yi mu ne dafa tooy pantar yi tax lu tooy nag panter yi tax loo ci teg defe naa ne dafay wàcc ah <laughs> ku ne an mu ne ma bu wax la nag ma ne lii lu muy firi mu ne ma demal jamono dina la yeewi ji ba nga xam loolu mais mag ñi bu njëkkoon boo toogee ñoom dañu lay wax wax joo xam ne dañu lay yar ci seen i kàddu xëy na nag yow boo nekkee xarit doo ko xam mais bi ñu demee ba màgg tey commencé doon ay responsable di duggante gi ni di génnante gi ci la ñu xam wax jooju li muy jariñ mooy tey mbooloo moo dem dina am koo xam ne suñ tubaab ko bu de da ngay tabbi yonent bi nga ragne ko wala nga ñak ragne bégal ko waxal ci seigne Touba li bind ci yonent bi boko defé xolam da na bég waaye dafa am ñoo xam ne euh, wax kaddu bu ñaaw da na neex te bari na ñu dé hôpital rayu leen ma yëgal la bari na ko dé ni dé ni rek ci biir dégam feebar rayu ko hôpital rayu ko dara ray ko lu dul bu ñaaw bu ko nit wax moko japp jàpp di ko mu kay metti lu ci biir xolam ba xeyna na këllëg dee kàddu dafa am solo dafa am solo fa tabaarakallaahu moo tax Sénégal daal bu may ñaan dinaa ñaan yàlla ñu defaraat wax yi làmmañ yi defaraat làmmañ yi xool ni ñuy waxee parce moo boo taxawee ne lu ma neex laay waxee waaye lu la neex tamit jàppal ne lu la neex dina la dal ndax ñun ñi yamuñu kilifa yii nekk ci réew mi seeni martaba day dumawaate ba tey tey jii boo jàllee Serigne Touba kàddu gu jaaduwul fi nga toog dinga am loo yëg dina am lu la fa fekk dóor te doo xam fu fu fu yar bi jóge noonu ci seen ajmaay noonu ci mag ñu baax ñi moo tax mag ñi daal na leen delloowaat seen cër te dëgg-dëgg nag war na leen delloowaat seen cër ndax bi ñu fi toog ci Sénégal fii nekk fi di doxal li ñu war a doxal ñun ñii daanaka boobu ñëwaguñu sax bëri na kuy jàpp mag di wax kàddu gu ñaaw ci moom te yow bërki dee ma nga judd ñun fekkee ñu jamono ak sëñ Touba fekkee ñu jamono ak sëñ Hadj May fekkee ñu jamono maam alxaaji Ibrahima Niass maam alxaaji euh, euh, nu tëddi maam alxaaji maam Limaamu Laay sunu maam yu baax yooyu fekkee ñu seen jamono kon yow nga judd seen ginnaaw ne da ngay jël kàddu gu ñaaw di ko wax ci ñoom kooku ku ñu ku ñu yarul mooy def loolu te loolu defe naa ne euh, yooyu woytu ko wootu ko baax na wattu loolu baax na ndax nit da ngay respecté sa kilifa waaye respecté waale boo leen kilifa boo xamante ni du sa kilifa kilifa jàmbur ndax mam euh, Cheikh Sidi Ahmed Tidiane daanaka faral di wax euh, ne maam maam maam euh, maam kii moo ko bind suñu maam bu baax ja ne mboolem wëli sëñ Xaadi Touré ne mboolem wëli yi naw naa leen ca yàlla bu baax waaye gannaaw ba nag jaayante naa ak Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ku ne sañ na ko ku ne sañ na ne man kii mooy sama baay ku ne sañ na ko te fa tabaarakallaahu yooyu daal bu ñu ko waree bu ñu ko mënee maytu baax na ci réew mi ndax ku ne gis na ne feebar bi kenn mënu ci dara ñëpp a jaaxle muy président ak njabootam di kilifa diine yi ak seen njaboot ñëpp a jaaxle muy wane ne kon yàlla mooy moo yebal benn benn mission nekk que ñëwal nga yaraat nit ñi te loolu ci àdduna bi yëpp la parce que nit dañu demoon ba màmm fas moo màmm ci fas lañ ko xamee woon waaye dem nañ ba léegi jinni ñoo màmm dem nañ ba léegi jinni ñoo màmm te màmm nag weesuwul jën kàddu gu ñaaw di ko sànni ci koo xam ne yow xamoo sax ay mbiram te pourtant xamal nga ko lu baax yàgg nga toog di dégg ñuy waxtaane ci sëñ Touba lu baax dégg seen xajmaa ñuy waxtaane lu baax lu tax nga bàyyi fi yooyu dem jëli ci kàddu gu la neex nii rek wax ko sànni ko ci nekk yooyu mooy tas réew yi yooyu mooy tas adduna bi moo tax yàlla yabal fi coronavirus bi nga xam ne ne koo gis mu ngi takk masque ñi mën a nooyi ak ñi mënul nooyi yëpp ngir yàlla dimbal bi di xool ni ñu protéger pour euh, feebar bi ba ñoo dal yooyu yëpp yàlla moo ñu ko fi yabal pour ñu yaraat suñu bopp waaw lii daal mooy mooy mooy mbir mi may ñaan daal ku may dégg ñu ah. dimbal ñu ngir jëm yàlla ñuy rafetal kàddu incha allah jërëjëf jërëjëf kàddu yi am na solo kon nag ñun suñu bopp ñun ñoo war a yeewu te xam ni Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar te mag yu baax yi liggéey nañ liñ ci war a liggéey ba noppi kon nag buñ ko yàq euh, bu ko defee El Hadj Pape lu tax mu gis ni génnee boo single ba tey foo toll si liggéey bi. waaw loolu moom euh, dañuy wax naan euh, montagne. Hmm. ku fexe ba yëg ci kaw moom. Hmm. defe naa ne bés boo commencé. di bërëngu rek bërëngu bi du am problème ndax moom foofu dañu naan bëri nga ci montagne ku ko teg rek dina dem te ñun ñuy tagg yonent bi ñun dafa bëri ñu ñuy seetaan tey bu ñu doon woy musique léegi rek di nga gis ku ñëw léegi produit ñu fexe ba ñu génn bitim réew bi siiw ci saasi mais ñun ñuy tagg yonent bi dañu rafet ci côté boobu euh, ndax damay faral di wax naan xëy na cofeel gi ñu war a soppee yonent bi moo des man loolu laay faral di ndax yonent boo ko bëggee képp ku koy tàgg ku mën a doon bu fekkee ne war nga mën a jàppale war nga ko jàppale te yàlla rek tax xëy na nag bi ci tànk yooyu di ci dox ndànk-ndànk waaye gisaguñu ku ñu taxaw ba ñu génn yooyu pour li nga xam ne moom la ñu jàng di ko di ci liggéey bëgg ko génne àdduna bi jëriñoo ko waaye insha allahu taala li mag ñi naan wax naan xëcc bu daggul lu ne mën na cee xew insha allahu taala ñu ngi xëcc Eh, di ñaan yàlla xëy na yàlla ci kanam tuuti. Hmm. yàlla dina def li nga ñuy li nga ñu yéene. Hmm. mooy ñu def benn clip génn ko ci àdduna bi. Hmm. Eh, xel yi ak xalaat yi mu ngi fi. mais xëy na doole gi moo fa àggagul. te incha allahu taala. mu ngi ñaan yàlla liggéey bi ñuy liggéey ci yonent bi. yàlla gën ko yaatal te gën ko sellal. loolu moo jëpp doole yëpp. Eh, dañuy wax naan tagg yonent bi képp ku koy def yàlla si wël la. yonent bi rek baax. borom parfum. tey boo parfum woon parfum bu neex. su ma dendeek yow nii ku dugg fii danaan parfum bi neex na. mais du xam kat moo ko tuuru. waaye dañuy faral di wax naan ku jog jog borom parfum. foog nga ne bun. waa ji ne parfum yonent bi nag day boole ñett. danaan bun. ne ban ne bananam. yonent bi ñaxam comme ñun li ñuy ñaxee nii. bu masaana ñax fii fii yëpp day ubbale ci xet bu neex. moom Seydina Muhammad kon kooku kenn du moom. koo xam ne ñaxam rek. tabaarakallaahu euh, ñi jaay parfum bu ñu bëggee seen parfum jar dañ daan fekk yonent bi nii bu ñaxee ñu jël musuwaar def ko nii ci ñax bu ñu demee boole seen parfum yiy jaay mais fa tabaarakallaahu macha allah te du yonent yàlla Muhammad ñu ñaan yàlla rek xëy yàlla dina defar mbir yi incha allah ci kanam incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf daanaka nag yegg si nañ suñu njeexitalu émission su ko defee dañ lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo bisimilah. يا خليفة يا خليفة si borom bonekaare bi sëriñ Babacar bi ixtadoo tey weral ku roy may danga raw يوم القيامة الدود للقرير والصخر يو سرين بابا كرس دانا وخنان بمرسل والسما باي ماودو كجنب ملسفة بيبا مواوي مويلة من الشيخ الخليفة من بحر العلم والحكم هم الشريعة هادنا لخير السبل من يفنفني يوم كرسرين بابا كرس mbay daan na mbay daan na Seydi Aboubacar Bakare Carama ñaañu doy doo seen maam. Aboubacar ami dogal ami sañ-sañ yóbbu na kooku ay way jël ji soxna yi ñun bu la sàggal nga la way doomi soxna yi bu la sàggal ala ñuy bëgg sëñ Babacar yi bu la sàggal fii ku fi sàggal ñu dem fii ku fi sàggal ñu dem fii ku fi sàggal ñu dem toppi ko mbay si bu jiitoo ñun topp sa ñun bu ñu jaxee mu jàll mbay bu ñu tiitee mbay walla noo mbay bu ko woowee mu wéy si la jéggi mu sirat mba jàll noo bu jéggee ëllëg ca kaw sara ñu naani kaw sara sa maam ca kaw sara ëllëg ca kaw sara ñu naani kaw sara ba mbay bu naanee wa bu ji bu naanee wa ساكن بابا بنو ساكن سبابا أي بنو ساكن سبابا أي بنو ساكن سبابا وتكون بنو ساكن سبابا وخلينا نجينا وخدرا يلا دوتي فاي سترا ننجبو تيجان ننجبو مريتو ننجبو خادر ننجبو يسين ننجبو سندال نوفيلي درجر نيخلو غلا ويب الخلو درجر نيخلو مريتو nekk laayeen ñoo fi nekk xaadir ñoo fi nekk ñeseen ñoo fi nekk du la wàññi dara dala way bul xuloo dara jarul ñuy xuloo dala way bul xuloo dara jarul ñuy xuloo dala way ñoo fi nekk cheikh nee na juboo dala way na juboo tiijaan na juboo muritu na juboo laayeen na juboo lu nu neen ñoo fi nekk lu nu neen neen neen Serigne mu ne fii laa ci sama saalu baay bi wawuma kenn propaganduma kenn te ñëpp ñëw nanu talal bi laa dëkk joor njaabur ba Fuuta Jolof saalu bawal Gabon tasxaalu luxyaabu laasiya laasiya maa ndakaaru xayru xuraa kasaaka ban li yu xaa am nan li max naawu ñu ne Serigne Babacar mu ne borom bonekaare bi mooy borom sakkare yàlla bi mooy borom ndak lu jëkkali mooy borom manto bi sabu sambal alasaan biraama maam goone ndooyi bu gaynde yeen doo xeeru sell yeen ndoomar kokoy Serigne Babacar maam alaaji Abdoul Aziz maga rakam ju baax ga nee ko bu ngeen di bàkke Serigne Babacar bi ittadoo tey weral ku rëcc mbay danga raw yowmal qiyaamati doo dégg riiru saxar bi ittadoo tey weral ku rëcc mbay danga raw yowmal qiyaamati doo dégg riiru saxar ñu ne alxaaji Abdoulaye mu ne bu ngeen di bàkk Serigne Babacar bàkkaleen ko ci minal basit mbaama diidi baa kaamelin baaramalin baara jasin bax ji tamaaki sabar ba muy kamam jaar ba muy mirsaat ba muy trompette ba muy guitare ba muy faafaani leeli di war ko xiinal bu leen mbalax sa wayka si ar ñu ne buñ ne diw baax nañu laaj nag mbokk yee ka wax te Serigne Babacar ay mbokkam ñoo njëkk a taxaw ne kii baax na moo tax Serigne Babacar nee na yéen xale yi juddi ci ginnaaw mbay gisuñu mbay te mbay la nu gëm xale boo ci waxal mbay mooy maamam ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf El Hadj jërëjëf El ñu ngi lay jaajëfal di rafetlu sa teewaay fii di la ñaanal suñu borom daal di gën a wéral baat bi waaye tamit kàttanal la dooleel la bu nga mën a ni liggéey bi mbokk yi nag ñu ngi leen di jëfal bu baax a baax di leen wax ni amoon nañu mbégte jàkkaarloo ak yéen seen émission langal na bi di leen wax ni lii lay demee saasu ne di leen jox di daje ba beneen yoon si beneen numéro di leen ñaanal jàmm te di ko sàpp si yéen بل دارت زواياه عمت مزاياه